nga communiqué woon nañu jël ji Modou Lo dem jël ji si jàmm indi ko si jàmm parce que ak niveau làmb yëpp xam na ñun suñu route lañ jox dañu jaar leen EDK lépp Pikine ñun ñu jaar EDK Pikine Modou ñu ne ko jaaral tribunal ba mais ñun defuñu dara ñu tër fu ñu jaaroo jaar nañu fël de route bi xamal ne kuy jug bis ñu naan bis boo xam ne sécurité wóoru wala woor na police dalay jox faute de route ñun dañ ñoo jox feuille de yoo xam ne ñun nii la ñuy jaar ñu respecté nañ suñu Modou Lo nag fu fu ni xale yi toog mooy xale dix-huit yu ndaw ndaw yi sept ans yi saxam ko def xale sept ans yi voilà xam nga xale yi da li ñu laaj lu ma koy wax nii dama tur euh, bi dama si sawar a tontu bu baax a baax ay temps xale yi xale yi trois cent lañu yor mënuñu jënd billet mënuñu seetaan bi tey boo leen xañee seetaan dañuy dem tax taxaw buntu stade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 suñu borom yàlla na ko nag face à bi moom amatul demal maa ngi ñëw muy Ama muy Modou amul kenn mun yàq. la le 22 janvier la incha allah monument de la renaissance. 22 janvier monument de la renaissance à lan ngay wax ñi bëgg Ama sopp Ama te bëgg seetaan face à boobu parce que nag ala kulli àll foog ngeen jàkkaarloo. wallaay.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 indi bii rek moo gën may baagal. mooy kii la kii la laxas ay affaire ci ah boppam nag. <laughs> on est on est jamais assez prudent. ci làmb la ñu nekk. Euh, Maker Coly Diagne Dakar Actu. asalaamaaleykum maa ngi nuyu assistant bi yëpp di nuyu Luc Nicolaï di nuyu Mbër. maa ngi lay nuyu di la remercier ci drapeau bi nga merci beaucoup. merci bu noble merci deux questions la amoon mais daa mel ni première question bi li mu amoon pour liggéey balaa yi waa ji posé na ko face à face parce que dañoo gis ne.